je vous euh, merci beaucoup monsieur peut-être ñu euh, revenir un peu si manière euh, ramassée li nga xam ne moom lañ euh, tënk comité local développement bi avons nga xam ne moom lañ au recensement général de la population 2023 bi nga xam ni ko par décret présidentiel muy le décret numéro 2021 1198 du 20 septembre 2021 euh, bi a wesso moy moy cadre légal bi le ministre de l'économie, du plan et de la coopération aussi qui été ñaar arrêté pour mettre en place un comité de pilotage euh, bi wesso aussi gouverneur de région moom euh moom moo président comité régional bi Euh, jël nañ jumtukaay yi mu wàcc si préfet département comité départemental bi tey nag ñu defoon la comité locale ànd si ak service régional de statistique ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk si arrondissement Notto euh, tey ñu doon waxtaan pour waajal recensement bi parce que recensement bi déwén la incha allah mais dafa laaj wàccaay ndax dafa bare ay phase bi cadre légal bi jàllee li wax euh, la cartographie sanitaire c'est li wara djublu motax ñu won ñi nga xamni ñoo ngank recensement bi yépp pour waxtaan euh ko défé service régional la statistique bi nga xamni mo koy piloter au niveau régional leeralal acteur bu nek neex mom lañu xaar ci mom té yaakaar naa ni biñ jógee si réunion bi ñëpp comprendre nañ enjeu yi parce que ce recensement bu fiable lañ bëgg boo xam ne duñu bàyyi kenn duñ boddi kenn ñu bëgg aussi agent yi nga xam ne aussi ñoo war a mener recensement bi muy agent recenseur yi donc euh, CLD bi sàkku na ñu jël leen bu mën a nekk si biir arrondissement bi waaye aussi na fekk aussi ñoom compétence bi ñu soxla mu nekk si ñoom quand on l'a noté et puis ñu fi nekk ñëpp dal jël nañu engagement pour que d'abord sensibilisation au niveau des populations tout le monde soit sensibilisé la euh, sensibilisation bi passée dañ dérouler inch'allah bi bu ci mais les am solo dal japp nañ acteurs fi muy les maires muy les chefs de village muy les relais communautaires muy euh, les fonctionnaires en tout cas on est au même niveau d'information pour nous war vraiment recensement bi en 2023 ñu mën ko réussir te li amon sol dal mu ñëpp adhéré nañ ci te ñëpp jël nañu engagement pour que inshallah bu ñu ci eggee jàmm ñu def ci ñu gëna rafété a askan bi mom li ñu xaar si moy mooy ñu ubbeeku ñu ubbil agent yi seen kër yi xamni li ñu jublu du mbirum politique du mbirum par parlo mbirum développement la mbirum xayma la ndax am réew bu fekkee dafa war a asseoir politique développement ak ay investisseurs il faut mu am fu mu ko teg fu mu ko doon teg nag mooy xayma gi ñu jàpp ni lii mbirum koom-koom la lu soxal réew mi yëpp la dañuy ñaan vraiment askan wi ñëpp ñëpp kenn ku nekk daal nga bañee nëbb benn nit parce que recensement li koy biaisé du affaire aussi pour pour fayee ko impôt du loolu nañ jàpp ni du mbirum impôt dañu bëgg xam askanu Sénégal nu mu toll donc loolu la que askan daal bu ñëwee bu ñu si jàmm ñu ubbil vraiment agent yi seen kër yi vraiment information yi laaj yëpp ñu mën see tontu xam ni daal lii njariñu ñëpp la. collecter information bi avec l'outil euh, l'outil électronique qui est la tablette comme ça ñu mën a am résultat yi rapidement bu ñu weesoo loolu nag dinañ def benn enquête bu ndaw bu ñuy wax poste censitaire. loolu après xayma bi la après recensement bi la dinañu tax ñu xool ba xam qualité bi ñu bëggoon yëpp ci ci tontu yi am nañ ko après nag ñuy doog a dem ci phase traitement des données calcul des résultats rédaction des rapports après phase bi mujje mooy doon euh, dissémination résultats yi maanaam wasaare résultats yi pour que ñëpp mën see jot. léegi ci CRD bi euh, maanaam am nga ci satisfaction parce que feeñ aussi. ne ci euh, agent recenseur yi dañ leen war a tànn ci localité yi moom loolu feeñ ci euh, li génn ci euh, CLD bi ban satisfaction nga am ci CLD bi CLD wu nooto bi am nañ si satisfaction bu baax parce que fii seetlu nañ ne balaa sax ñuy wax lan mooy solo recensement chef de village yi at directeur école yi dem ba si sous préfet ñoom ñëpp comprendre nañ déjà lan mooy recensement bi ñoom ñoo ñu gën a xam sax njëriñu recensement bi parce que wax nañ ko xam nañ ni dafa am solo xam nañ ni tamit il faut que ñuy gën a yokk sensibilisation pour nit ñi mën a adhérer si recensement bi kon loolu dañ c'est pas toujours le cas yeneen gox yi parce que nit ñi tout le temps dañuy xaw a réticent euh, donc l'Oldal, daal moo nous satisfaction assurance boo voilà on peut compter sur ces autorités là pour euh, être des relais pour nous appuyer dans la sensibilisation envers la population.